mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti.com comme à chaque fois ñu ñëw ak ci actualité ñuy wax nag ci ki nga xam ne moom mooy Malick Thiandoum ñu ñuy xamal ne nag dafa daal di quitté groupe bi nga xam ne moom mooy groupe E-Media ab diir boo xam ne toog na fa toog na ko fa daal di ko fay liggéey ki nga xam ne ah, moom mooy Malick Thiandoum dafa daal di quitté groupe bi ngir jëm fële nga xam ne moom mooy groupe ah, Futur Media ah, kii di journaliste sportif bi na xam-xamam màcc lool ci wàllum làmb nga xam ne ci lañ ko gën a ràññee moom nag ñu bëri bëri ngi yaakaar ne bu ñu mee bu demee fële nga xam ne euh, moom mooy euh, télévision future Médias dina fa fekk ñoo xam ni euh, bu ànd ak ñoom dinañ def liggéey bu am solo ci li nga xam ni moom mooy wàllum làmb ndax foofu tamit bëri na fa ñoo xam ne ay journaliste lañ seen xam-xam màcc loolu ci wàllum làmb ki nga xam ni nag moom mooy Malick Thiandoum ci moom ci boppam daal nay wax ci jógeem gi nga xam ne jóge na ko fële nga xam ni moom mooy groupe E-Media moom nag mi ngi wax ni amul benn foofa dafa di rek proposition yi nga xam ne ñoom la ko waa télé Futur Média defal ñoom ñoo ko gën a arrangé loolu waral ba mu daal di quitté li nga xam ni moom mooy groupe E-Media ci fàttali nag ki nga xam ni moom mooy Malick Thiandoum jëkkoon na nekk fa li nga xam ni moom mooy RTS di télévision nationale jóge fa daal di dem Sen TV jóge fa daal di ñëw fi nga xam ni moom mooy E-Media ji nag destination moom télévision Futur Média loolu lañ leen indiloon tey doon wax moom mooy euh, Malick Thiandoum ci jóge gi nga xam ne jóge na ko fa fële nga xam ni euh, moom mooy groupe E-Media euh, continuer leen nag di topp seen site d'information limametti point comme ngir dara bañ leen a di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen xibaar